waaw ba ñu defee session budgétaire le vingt neuf euh, décembre gis ngeen ne président Idrissa Seck dellu si na ci lu mu mënee woon mooy euh, wax wax ju rëy wala dëkk ci njuumte te boo xoolee wax ji mu yëkkati daal di ne président Macky Sall lu mu jagleel Thiessois yi maanaam boo koy xayma matu sax ñaar fukki dërëm par Thiessois. ñu koy fàttali ni moom président conseil départemental war na comprendre que l'ensemble des collectivité locales yi nekk ci département bi fukk ak juróom benn lañ ñooñu lañ leen jox ci fonds de concours ci deux mille quinze deux cent millions la maanaam ñaari téeméeri millions lañ leen jox ci fonds de dotation pour seen fonctionnement cinq cent quatre vingt deux la maanaam juróomi téeméeri million ak lu ci topp kon boo ko xaymaa jege na sept cent et quelques millions presque huit cent millions kon foofu juum na fa. juum na fa te moom warul juum parce que daa jiite ab institution nekk homme politique bëgg a jiite réew mi bu fekkee nii la bëgg a jiite Sénégal moom ma macha allah loolu yàlla lañ ci yàlla musal léegi bu loolu weesoo ñu fàttali leen ni moom Idi Njuumte bañ ko joxee budget 2014 daf ñoo indil compte administratif pour ñu voteel ko ko at boobu lu ñu gisoon mooy 66 millions lañ ko consacré lool. 64 millions yëpp def na ko ay mandat dem trésor gars yi daal koy retourné 30 millions ne ko mandat yi dañ ko annulé maanaam da ngaa juum ci niñ ko defee kon it idi njuumte defaat na fa ay njo njoomte yoo xamante ne xañ na département bi 30 millions ci gestion am ñu gis ni 51 millions de recettes yu mu amoon ñu jagleel ko ko 35 millions yi rek la ci exécuté kon am na 15 millions yi nga xamante ni daanaka département bi jëriñoo ko ci année boobu mais loolu lan lay wane. lu dul tële lan lay wane lu dul weesu sax njuumte mais ñàkk mën-mën ñàkk am capacité pour mën a servir les populations comme bu dee Macky Sall daf ko jox quatre-vingt-treize mais Macky juumul <laughs> parce que xam na ne saawaa ji boo ko joxee euh, ñaar téeméer pour waa département bi moom mënu cee liggéey même pas les deux kon kay il a parfaitement raison de li donner ça surtout ko sax loolu amul ndaxte boo xoolee Macky dugal na fi sept cent quatre-vingt-deux ci benn at sans compter PSE sans compter PUDC ci village yi sans compter aéroport Ila Touba Ila Tivaouane ay Thiès ak yeneen ak yeneen yu mu dugal ci biir dëkk bi moom pendant ce temps lan lay def loo ko jox du ko mën a jël pour que askan wi mën ci jëriñoo loo ko jox du ko mën a utiliser pour que Thiessois yi mën ci gis seen bopp teg ci du mën a dem sax pour jéggaani dem lijjanti jël leneen pour Thiessois yi mais loolu c'est un problème très sérieux boo xamante ne war nañ ci wax. ñu lool moo ñu jaaxal ci monsieur Idi Njuumte. est biir conseil bi yéen yéen a ngi porté le combat. ah bien sûr ci lañ dëkk chaque jour boo xoolee daaw ay jamono daawul ñëw taxaw nañu wax nañu nit ñi dégg nañu te mu ngi am vingt euh, vingt et un millions de salaire par an vingt et un millions mais bañ ko waxee ñibbisi na ñëw na commencé di liggéey si j'espère que dina ko ne ci yoon boobu ndaxte bu ko deful aussi dañu dégg. ñun conseil bi tant que ñu ngi fay nekk Idrissa Seck dañ koy pousser ci mu liggéey il faut que mu liggéey parce que dañ ko fay teg pour mu liggéey ñu ko pour mu nekk buuru Thiès dañ kaa teg pour mu nekk un agent des Thiessois boo xamante ne chaque weer dañ koy fay salaire pour muy liggéey kon bu fekkee dañ koy fay salaire te liggéeyul ñun dina dañ taxaw jàkkaarloo ak moom ba nit ñu xam ne jàkkaarloo ak moom te loolu gis naa ne conseil yu bëri ñu ngi ci ànd ak ñun ci liggéey boobu.